Viviane ak Jijak léegi léegi ñu bëri dañ naan est-ce que li du doon mariage faj mer est-ce que Moustapha Dieng dafa dugg ci soxna si Mariam Thiam ngir ngir wan Viviane ne hey gis nga xibaar xibaar xibaar breaking news Moustapha Dieng ancien jëkkëru Viviane moom la ñu wax ne dafa takkaat beneen jabar bu tudd Mariam Thiam kii dañ ne directrice la um, société bi muy yor est-ce que tuddul intérieur design rek nga ne da nga ciy génn wala nga ne sumbulul parce que dégg am na benn euh, benn soxna su génn soxna Aïda la tudd defe naa seetkat la moom nee na sëyu sumbulu du yàgg ñun nag du ñu def lu mel noonu mukk ndax ñun ñaanuñu kenn mu dugg ci sëy léegi daal di tas léegi dañ ah. dañ leen di amuloo lu suukar baraada quelque chose comme ça loolu message la boo xam ne c'est un peu matérialiste parce que yow yaa ngi wax ne kon góor bi dafa mel ni yow xaalis rek nga ko toppee maanaam maanaam yaa ngi ngi encaissé nit ñi seen yaa ngi ne sëriñ la di dem nit ñi di la jox xaalis nga naan mën nga faj cancer ku lafañ mën nga ko doxloo doxloo xam nga di def yu mel noonu nit ci jox la xaalis mais ñun na nañu droit ñu gars yi nag li mu leen di wax nag mooy dee leen di partagé euh, dee leen like parce tamit ñun nii lañ mën a def di leen indil xibaar yi

bon man Mr. Shake depuis euh, Brooklyn New York maa leen bëgg defal vidéo bi mais avant tout dama bëgg nit ñi xam ne man youtubeur youtuber youtubeur laa damay informer nit ñi damay wax ci célébrité du question ne dama sop, wala dama waane wala damay dugg lu sama yoon nekkul waaye man youtubeur laa damay entretenir samoy samay euh, abonné dañuy commenter ci célébrité yi ndax célébrité yi ñoom ñoo jël seen information ne ko fàng ci internet bi ñëpp xam nañ ni moom Viviane ay jëkkër ak jabar la ñu woon jabar la ñu woon Moustapha Dieng moom moo doon jëkkëru euh, Viviane waaye dafa bokkoon ci staff bi léegi seen mariage ñëpp dañu yaakaaroon ne vraiment dañoo bëggante mais yàlla dafa def ñu dem ba ci biir ñu divorcé ba ñu divorcé nag après ci la Viviane génne benn way way bu tudd euh, doo dara doo dara bi nag ñu bëri dañ ne Viviane Moustapha Dieng la doon waxal mais man yaakaaruma loolu ndax Viviane man gëm naa ne buy dugg ci mariage du ci dugg ngir xaalis ndax doo dara bi mu ngi wax euh, euh, góor gi amuloo amuloo lu suukar baraada quelque chose comme ça loolu message la boo xam ne c'est un peu matérialiste parce que yow yaa ngi wax ne kon góor bi dafa mel ni yow xaalis rek nga ko toppee te xam nga loolu vraiment ñun diggaluñu ko suñuy jigéen yi nga xam ne dañuy sëy

waaye sumbul bu bu waree am jëkkër nekk rôle model maado ñu gis ne jëkkëram Abdoulaye Xaas dafay def li ñuy tuddee yëfu charlatan maanaam yow yaa ngi encaissé nit ñi seen xaalis yaa ngi ne sëriñ nga di dem nit ñi di la jox xaalis nga naan mën nga faj cancer ku la mën nga ko doxloo xam nga di def yu mel noonu nit ci jox la xaalis mais ñun am nañu droit ñu ñu ñu ñu commenter ci ku ci nekk sa sa mariage daf laa doy sëkk ñun waxuñu ne. on ne prétend pas avoir la vérité man waxuma ne man maa fi gën déedéet man nit ni may waxee ci du euh, tuddati euh, Moustapha Dieng di wax ci Viviane di wax ci ku mu mënti doon non lañu ñuy wax ci Abdoulaye Diop Khass parce que Abdoulaye Diop Khass ak Soumboulou ay ay ay célébrité lañu Waye man dama sétane Abdoulaye Diop Khass mu tok muy wax ne mën na faj cancer mu koy wax Pape Pape Cheikh Diallo ñoom ki la ko doon wax ñoom Saneex mën na faj cancer mën na faj. Euh, hypertension te loolu pour man waxu waxu waxu waxu charlatan la ñu wane ko mu jël benn këyit def ci ndox carton ne da ciy ataaya mais carton bi dañ ci dañ ci def scotch bu ñuul wala boog lu ñuul lu nduroo scotch xam nga mu ne këyit bi du lakk loolu pour man yëfu charlatan la ndax am na beneen sëriñ bu génn bu tudd Baara Señaan Baara Señaan dafa ne kii li muy def du du islam parce que moom nee na daf ciy tufli ay saar nee na du affaire islam Baara Señaan ci mu jël carton bu mel noonu mu teg ko ci xal ba pare. di ci baxal nen loolu gis nañ ko te carton bi takkul Baara Sagnane nee na dox ci xottu biteel du ay affaire saar du ay affaire jinne Baara Sagnane ci boppam dox ci euh, ci loolu tànkam daggul ñun looloo taxoon ñu génn di wax ne sumbulu est-ce que xam na ki ki ko ki ko takk est-ce que xam na ko mais loolu warul tere Soumboulou dem sëy ak Abdoulaye Diop Khass ndax sëy boo ci dugg comme ni mu ko waxee mbëggeel moo tax nga ci dugg ak yàlla moo ko tudd yàlla bu tuddee ne ñaan yi dañu war a sëy dañu war a sëy léegi nag yow boo boo nekkee ci sëy xam nga lan mooy sa devoir yow jigéen bi sa sa jëkkër lépp lu mu doon def bu fekkee ne dafa baaxul yow yaa ko ci war a génne sa jabar tamit yow bu fekkee ne da ngay sëy jigéen mu ne lu mu mënti doon boo gisee ay défaut yaa ko ci war a génne mais du question ne dangay dugg ci sëy rek daa di ko ñu gis dara metti la ci rek rek nga ne da nga ciy génn wala nga ne sumbulu parce que dégg am na benn euh, benn su génn soxna Aida la tudd defe naa seetkat la moom nee na sëyu sumbulu du yàgg ñun nag du ñu def lu mel noonu mukk ndax ñaanu ñaanul kenn mu dugg ci sëy léegi daal di tas léegi dañ dañ leen di ñaanal sumbulu ak Abdoulaye Diop Xaas dañ leen di ñaanal yàlla na sëy bi barkeel moo tali nekk moo tali sa morom képp loo ci doon def lu bon nga génn ci loolu mooy sëy jigéen dafa war a motti jëkkëram jëkkëram war ko mottali mais du du question ne da ngay dugg gis ñaari nit di sëy rek nga leen di ñaanal yàlla nañ divorcé waaw ñu ñun Abdoulaye Diouf xaas foofu la ñuy waxee man nag youtubeur laa man damay commenté ci lépp damay commenté ci lépp voilà léegi tamit ma bëgg wax ci Viviane ak Djidiack léegi léegi ñu bëri dañ naan est-ce que lii du doon mariage faj mer est-ce que Moustapha Dieng dafa dugg ci soxna si Mariam Thiam ngir wan Viviane ne hey gis nga bu fekkee ne sa way bi nga doon way amuloo lu suukar baraada gis nga tey maa ngi nii ànd ak jigéen ju rafet ba pare nekk nekk directrice xam nga est-ce que Viviane tamit dina fi jógee moom it ne day uti beneen jëkkër pour faj mer yaakaaruñu ko yaakaaruñu ko parce que yaakaar nañ ñu ñaar ñaar ñi ay adulte lañu maanaam ay mag lañu te wax dëgg dañ leen di ñaanal bu ñuy dugg ci sëy ñu dugg ci ngir mbëggeel Viviane dafay dafay delloo ak bu Bouba Ndour yaakaaruñu ko parce que ñoom ñaar am nañu ay doom yu mag bàyyante nañu lu yàgg Viviane mu ngi def carrière

parce que Viviane génnoon na fi di ko ñaanal ci ci benn émission télé loolu moo tax ñu ciy wax parce que ay célébrité lañ mais li ñuy wax rek mooy Moustapha Dieng ñu ngi koy ñaanal yal na barkeel lépp lu mu ci séntu yal ko ci am sumbul tamit ñu ngi koy ñaanal sëyam di ko digal mu jéem a defar jëkkëram jëkkëram mottali ko lépp luñ ci séntu séntu yàlla na yàlla na ci yàlla def jàmm ñun foofu la ñu waxee man man youtubeur laa mais man sax nit ñi dañuy def vidéo ci man ah man maa ngi nii dem dañuy toog di génne ay vidéo di ma attaqué mais c'est normal parce que boo demee ba ne fàng rek ci ci internet bi lépp lu ñu la waxal rek. ah da ko war a nangu ñun dañu ñëw fii pour defar jikko jikko yi xam nga matuñu nag waaye dañuy joxe suñu xalaat ci politique dañuy joxe suñu xalaat ci làmb dañuy joxe suñu xalaat ci lépp. maa ngi ma daaneel loolu nag man waxoon naa leen ne Sonko man maay Mister Shake man maay Ndiago Sonko man maay Mister Shake man maay Ndiago Sonko. Sénégal is one. Our mission is done. Paramare number one. Wali's number one.